Théodore Chérif Monteil maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Moreau. Théodore Chérif Monteil nga nekkoon député ancien parlementaire tey ñu lay laaj déjà euh, coalition waa euh, Yewwi Askan Wi annoncé benn motion de censure euh, ci assemblée nationale ban appréciation nga si def en tant qu'ancien député. waaw motion de censure dafa nekk loo xam ne constitution Sénégal moo ko may député yi pour ñu mun koo def nekk bu fekkee ne téeméer boo jël fukk yi. d'accord nañ ci teg motion censure maanaam tey ci suñu contexte assemblée nationale bi fukki député ak juróom-ñaar euh, war nañ mun a teg motion de censure motion de censure mooy bu fekkee ne gouvernement bi dafa jël yoon woo xam ne député yi yaakaar nañ ne que yoon woowu baaxul pour askan wi ñu jéem a daane gouvernement bi pour teg beneen gouvernement donc loolu moo am tey euh, mu nekk nag exercice boo xam dafa xaw a difficile euh, parce que daf laaj genn wàllu député yi ak euh, teg lu teg benn maanaam tey euh, juróom-ñetti fukki député ak ñett nga war a am pour mun a jàllale motion de censure bi ñuy fàttali rek que ne motion de censure benn yoon nga ko mun a def ci session bu nekk munoo ko def ñaari yoon boo ko defee benn yoon mu jàll ak mu ñàkk a jàll munoo tegaat motion de censure te bu ñuy compter duñ compter ñi nga xam ne dañu compter ñi d'accord rek lañuy ñuy donc noonu lay vote bi di demee dañ naan euh, motion de censure buñ ko tegee ñu ñu étudier ko ñaari fan yi ci tegu plénière bi war na réunir pour examiner ko ñu ne kan moo ci d'accord ñu yëkkati seen loxo vote public à la majorité absolue lañ wax donc 83 députés ñoo koy voté. voilà euh, Théodore kon euh, motion de censure bu fekkente ni jàll na euh, lan mooy xew exactement. motion de censure bi bu jàllee euh, loi bi dafa wax premier ministre dafay démissionner immédiatement day démissionner immédiatement et comme premier ministre euh, ak gouvernement bi euh, dañu solidaire bu démissionner rek day ni démission gouvernement bi yëpp bu boobaa président de la république dafay tabb premier ministre bu bees ak gouvernement bu bees mais ci contexte li ñu nekk Sénégal mais fàttali ne bu subaa buñ defee motion de censure ñu voté ko mu jàll Euh, premier ministre bi daanu gouvernement bi daanu ca gannaaw ëllëg le président mun na nommé waat même premier ministre ak même ministre yi te kenn du ci mun dara parce que duñ mun a tegaat motion de censure parce que moom laa doon expliquer ca njëlbeen ga il y plusieurs euh, mois bi nit ñi di wax waxi cohabitation ma ne leen texte yi Sénégal ni ñuy gouvernement bi ni constitution bi doole bi mu jox président de la république mayu ñu ñu am euh, cohabitation parce que boo defee motion de censure mu jàll mu nommewaat même premier ministre bi mënoo ci dara mënoo mënoo defaat motion de censure mhm. euh, donc euh, daanaka du am njëriñ xanaa ci opinion bi ñu wane que ne euh, nu mu tuddati bi ku jegi am na doole assemblée nationale ba mun a yenn loi moo tax j'espère que ñoom def nañ concertation yu baax ci seen biir parce que bu jàllulee tamit day def li ñuy wax effet boomerang day dellu si ci ñoom parce que bu boobaa day wane à l'opinion sénégalaise que kujje gi ci biir assemblée nationale bi ñoom ñëpp ànduñu. Mhm. Euh, motion de censure bi euh, pour yow si sa xalaat en tant que qu'observateur euh, pour yow opposition bi lan la si bëgg a wane exactement le fait que ñu bëgg ko def. bon motion de censure dina wane ñaar dina wane d'abord sa doole ci biir penc ndawi réew mi nekk yow tu pèses vraiment ñaareel bi dina wane que ne. Euh, bu fekkee ne gouvernement bi yoon biñ jël euh, député yi ci këpp considéré wuñ nekk que loolu moo gën ci askan wi am nañ sañ-sañu teggi gouvernement bi defe naa ne nag loolu moo leen tax a jóg parce que bu bu déclaration de politique générale amee loi bi daf nekk que premier ministre mun na oote vote de confiance maanaam euh, ñu fëddali kóllëre wan ko ne wóolu nañ la moom nag wootewul loolu wootewul euh, vote de confiance bi parce que euh, c'est normal seen majorité bi demeewul noonu ah donc euh, demeewul noonu ba nga xam ne wóolu nañ seen bopp wóolu buñ mun a oote vote de confiance léegi nag bu fekkee ne moom vootewul ootewul vote de confiance ku jégi am na possibilité tamit comme ni ko texte yi prévoiré daal di def ni ñu koy waxate Euh, motion de censure motion de censure boobu nag lañ def tey euh, ñu war ko examiner suba di yaakaar rek ne euh, comme ni ma ko waxee ci njëlbeen nga arrondir nañ angle bu baax ci seen biir parce que ñaari groupe la groupe yeewi askan wi ak groupe wàllu teg ci tamit député non inscrit yi parce que buñ demee amuñu quatre vingt trois voix yi alors que possibilité tey tey tey normalement bu lëkkaloo bu baax ci seen biir war nañ mën a am quatre vingt trois voix day won opinion bi que ne am na xiiroo ak ngaayoo ci seen diggante wala d' accord wuñ ci lépp. Euh, yow naka nga gisee tontu bi nga xam ne premier ministre euh, tontu na ko par rapport ak bi muy def euh, déclaration de politique générale ñu bëri interpellé ko ci troisième candidature bu Macky lu mu tontu dégg nga li mu tontu ban jàngat nga ci am yow. waaw bon euh, normalement man pour man amuñu pour poser question boo premier ministre parce que loolu du liggéeyam président Macky Sall moom la ñuy njort ne dafa bugg a nekk candidat wala warul nekk candidat euh, moom la ñu war a poser question bi premier ministre amul lu mu ciy tontu lu mu ci lu mu ñu ci mën di wax it euh, kii la rek lu mu lu mu lu mu lu mu xalaat la waaye du du lu nekk ne mooy li wóor. président Macky Sall rek moo mun a ñëw jàkkaarloog askan bi ne damay nekk candidat en mille vingt quatre wala deux mille vingt quatre du ma nekk candidat amul beneen nit bu ci mun a wax ñu mun ci fas dara. Hmm. est-ce que yow wóolu nga bokk nga ci ci ñu wóolu euh, conseil constitutionnel wala ñu ñàkk a wóolu conseil constitutionnel euh, ça veut dire que dafa am tuuti liaison ak troisième candidature bu Macky Sall bu fekkente ni samp na ko aloo euh, xalaat ci conseil constitutionnel. waaw man comme ni ma koy waxee toujours rek par principe man euh, dama nekk koo xam ne je suis un républicain euh, maanaam dama respecter institution dëkk bi institution yi ñun ñoo ko tabax ñoo ko bokk euh, baax na sooxe na moom mooy su yooyu yooyu suñu institution dañ leen war a respecter man mënuma toog fii naan conseil constitutionnel li muy waxtu du dëgg wala li mu wax du parce que su ma su ma nekkee koo xam ne dama bëgg a bokk ci ñuy jiite réew mi dama war a respecter institution yi parce que institution yooyu laa fiy fekkaat suba am na amaana nag chaque jour booy tabax da ngay améliorer di defar di defaraat parce que euh, ndar xëyul sotti euh, donc conseil constitutionnel ay nit lañ jàng droit dañ leen di jébbal ay texte ñu interpréter ko ñu ko interpréter après ñun ñëpp dañ ci war a d'accord parce que ñun ñoo leen fa teg bu fekkee nag ni Euh, au-delà du conseil constitutionnel ay citoyens sénégalais lañ am suñu droit de vote am sañ-sañu tànn donc même bu fekkee constitutionnel conseil constitutionnel li mu def dafa dañ yaakaar ne méngoowul ak la mu war a def ñun ëllëg candidat bu ñëw boo xam ne yaakaar nañ ne warul jiite Sénégal am nañ sañ-sañu voter contre lui à plusieurs reprises sénégalais yi wan nañ wane nañ ne mun nañ loolu euh, en 2012 candidature Abdoulaye Wade indi na fi wax ju bëri jàll na mais terewul bañ demee élection dañu voté daan ko donc in fine daal ca ca ca ca cappaandaw ga lay lay lay lay lay lay tàqale ñëpp mooy vote bi te vote boobu yaakaar naa ne sénégalais yi xam nañ bu baax niñ koy defee léegi. sa jàngat ci affaire ñaari député yu PUR yi Samb ak euh, du Niang bi nga xam ne dañu yëkkati ay loxo euh, dóor euh, Amy Ndiaye ñibbi ñoom nag actuellement ñu ngi ci loxol justice am na ñoo xam ne sax nee nañ waruñ leen jàpp parce que dañoo am lu ñuy wax immunité parlementaire ñenn ñi ne immunité parlementaire du couvrir li nga xamante ni mooy flagrant délit yow loo si mën a wax en tant qu'ancien député. waaw d' abord dañu war a xam ne immunité parlementaire ñaar la immunité parlementaire waxul ne député bi kenn mënu ko topp ci dara immunité parlementaire daf ne député bi ci biir liggéeyam ci biir liggéeyu député li muy voté ak li muy wax kenn mënu ko cee topp dafa préciser bu baax ci biir liggéeyu député donc ci leneen bu fekkee da nga nekk di wax ci leneen immunité parlementaire boobu couvriru la ñaareelu immunité parlementaire mooy li ñuy wax inviolabilité maanaam. Euh, député bi jëmmam ci boppam kenn mënu ko kenn mënu ko tëkk euh, mais loolu dañ ko dañ ko dañ ci yokk ñaar dañ bu fekkee ne flagrant délit la fekkee flagrant délit la procureur mun na ko topp bu fekkee ne du flagrant délit te justice bi dafa yaakaar ne war na ko mun a war soxla na ko mun na jaar ci benn procédure bu ñuy wax levée immunité parlementaire bu boobaa dañuy bind assemblée nationale ne ko député bii de yoon daf ko soxla dañ bëgg ngeen teggi ki maanaam kirlaayam ci diir yoo ñu def suñuy enquête xool ndax liñ koy jiiñ moo ko def wala defu ko bu fekkee moo ko def yoon daan ko bu fekkee defu ko ñu delloo ko ay droit yam donc il faut ñu comprendre loolu bu baax ci cas bii ñu nekk de euh, règlement intérieur assemblée nationale daf ne bu amee jéeya yu xew ci biir assemblée nationale président bi daf ko war a xaatim ci kayit daal di ko jagleel ci saasi procureur de la république bu ko ko jaglee procureur de la république léegi moom mooy xool moom ndax dafa war a poursuivre wala déet bu waree poursuivre moom tamit mooy xool ndax flagrant délit am na wala flagrant délit amul nekkul ne ay citoyen ordinaire ñooy saisir procureur ne ko lii flagrant délit la procureur moom mooy maître des poursuites maanaam moom la ñu jagleel mu topp ay nit ci dëkk bi moom rek moo mun a wax ndax lii flagrant délit la wala du flagrant délit parce que code de procédure pénale bi décrire na ko nu flagrant délit war a taxawee moom dina ko càmbar xool ndax flagrant délit la bu fekkee flagrant délit la bu waree poursuivre mu poursuivre bu warul poursuivre mu bàyyi leen bu fekkee du flagrant délit yaakaar na ne war na poursuivre bu boobaa mu jaar ci procédure levée immunité parlementaire mais il faut que nit ñi bàyyi di jël ñoom li ñu xalaat ak li ñu bëgg wax ne loolu moo wara am dernière question monsieur Montey euh, cherté euh, dund gi dund gi cher na lépp daal di yokk am mesure yoo xam ne gouvernement bi jël na ko pour yow est-ce que mesure yooyu euh, doy na pour wàññi dund gu cher gi euh, loo ci xalaat dernière question voilà. waaw man euh, dund gu cher gi vraiment démb rek dama ci am benn exemple parce que dama nekk ci suma oto di ñibbi di déglu rajo bi. journaliste yi di def benn micro trottoir di laaj ay nit ci affaire sobleeg yooyu euh, ñu naan soble bi cher na dégg naa sax benn femme mu ne jënd na genn wàll libari soble euh, ñeent fukk ak juróom deux cent vingt cinq francs lu jaaxal ma trop ça dire kilo soble dem na daanaka ba neuf cent francs donc ñu ñu doon wax ci affaire yi loyer bi di wax ci diwlin bi yooyu yëpp boo nekkee man fa ma dëkk nag fële Kër Mbay Fall su ma xëyee dem ci boutique bi damay gis nit ñi di ñëw di jënd prix yi ma doon dégg avant ñoom laay dégg ba léegi donc ça veut dire que mesure yi gouvernement bi jël amul benn impact te doon na baax torop yéen journalistes yi ngeen jël mesure yooyu daal di dem ci askan wi xool exactement mesures yi am na impact parce que chaque jour gouvernement bi toog jël ay décision ci ay prix man dama koy wax gouvernement mënul fixe prix dañuy nax askan wi mënuñu fixer prix parce que commerçant bi nga xam dafa dem jënd bagage am jënd cent franc frais ci vingt cinq franc war ci am peut-être dërëm wala ñaar dërëm pour que business mun a continuer munoo ko wax mu jaayee quatre vingt dix franc ce n'est pas possible boo ko ko forcé day bàyyi business boobu moo tax gis nga suñ ko en poudre bi gars yi ñu jooy gisuñu ko parce que commerçant yi nee na ñoom mënuñ ci génn donc dañuy arrêté commerce bi. parce que doo dem jënd sa bagage war ci euh, euh, am dara pour mun a continuer sa business mun a yore yow itam sa njaboot wala nga tabax sa kër war ko louer lii pour mun cee génn parce que lii nga ci investir gouvernement bi ñëw ne la doo ci doo ci am loolu bu boobaa da ngay bàyyi te bu bu boo bàyyee gouvernement ci dara c'est c'est ce qui arrive donc il faut que ñu bàyyi tëdd ci seen bureau yi di jël ay décisions yoo xam ne xam nañ ni bu baax applicabilité bi mënuñ ko assurer. loolu nag dama bëggoon journaliste yi vraiment càmbar ko mais def ci benn dossier bu mag a mag a mag parce que nit ñi sonn nañ ci cherté de la bi ñu ñu jaay toujours ay poussière parce que gouvernement bi amuñ amuñ compétence su euh, def yenn analyse prospective yi pour mun a protéger citoyens yi contre les augmentations de la vie. Théodore Chérif Monteil Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di gërëm Rewmi FM di leen encourager ci liggéey. may fàttali ni ancien député nga ancien parlementaire jërëjëf.